bi ñu gisee ñi ñu tuddee nervi yi nervi nag du dara lu dul ay sàmbaaboo yi yoo xam ne dañu yore ay gànnaay di rey ay xale yoo xam ne dañuy manifester télévision yu mag yi wane nañ ko fu ne gis ñuy wàcc ci ay pick-up yu weex pick-up yu weex yoo xam ne gis nañ ko mu gaare ci siège parti président loolu télévision yu mag yooyu ñoo ko wane mu wër Sénégal yëpp ba fukki bakkan ak juróom benn ci li ministre de l'Intérieur, l'intérieur wàññi Amnesty International ne ñaar fukki bakkan ak ñett rot nañ ci image yooyu def touru Sénégal kon président Macky Sall gàkkal nga image bu Sénégal ndax lii du Sénégal bëgg troisième mandat nag mooy dindi yëpp ay manifestation suñu doom yi ñu leen di boobu bëgg éliminer ay candidats jaarale ko ci justice presse bi aussi ñu sonal leen ba ci tëj ay station de télé nga yebal say ministre xam naa ne sax danga leen di yebal da nga leen a puus ndax premier ministre moom duñ koy faral di dégg moom la mu jàpp ne primature mooy da ngay noppi ni Thiel rek primature u Thiel daal moom la jële waaye xam naa bii moom dañ mii fa nga dem taxaw nag wax wax jam lam ca wax sax bëriwut waaye boolewuñu ci sax benn yërmande ca nañ doon waxe benn yërmande ay xale yoo xam ne ñun ñii suñu ay maramu doom lañu pour ñenn ñi mu mat leen sët xale yi lor seen bakkan nañu doon waxee vraiment li ñuy xaar ci ñoom ak ci président de la république mooy d'abord ñu massawu famille yi nga xam ne seeni doom loru nañ ci ñàkk nañ ci seen bakkan waaye ba ñuy wax am na ci ay waxu tubaab fanfaronnaan maanaam ñi tudd yi dañoo bëgg a wane wu rek waaye ñi tudd yi lanu bëgg mooy ñi reylu xale yi ak ñi leen rey ñu andi leen ci kanamu yoon kon am na nooy waxee rek sax ci question yooyu war nga cee boole tuuti tuuti yërmande ndax famille yu bari tey ci tiis la ñu nekk ci gone yooyu nga xam ne seeni waajur amoon nañ ci ñoom yaakaar tey ñu boom leen ñoom nag ba ñuy waxtaan wax nañ ay force occulte kooku boo koy faram-fàccee ci wolof mooy maanaam ay samba yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge jogoon nañ jotoon nañ ko wax nag mille 2020 li ma ci jaaxal mooy bu fekkee ne da ngay wax yu wax samba yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñetti at mënoo leen a gis mënoo leen jàpp xamoo fu ñu nekk kon ñooñu matewuñu li ñu leen dénk kon ku ne rek war ngaa tiit ci sa kër ku ne war ngaa tiit ci sa

li nga xam ne nag mooy mooy li ci nekk mooy ñu ci bëri ci sénégalais yi muy fii ci diaspora bi ñoom it dama lay di saluer ci seen taxawaay fu ne manifesté nañ ko fu ne fu ne manifesté nañ ko lu ne ñu ngi koy def te pourtant ñoom ñu nga ca ñu ne di daan seen doole bëgg lu baax pour seen réew bëgg aussi seen réputation réew réputation bi nga xam ne président Macky Sall gàkkal na ko. ndax lii yëpp li ma ko waxee bëgg troisième mandat moo ko indi kon ñun ñëpp vraiment am nañu kersa bi nu gisee vidéo yooyu nga xam ne presque international bi moo ko wane waaw bu fekkee ne du dëgg lu nuy xaar pour porter leen plainte xam nañ nu ñu tudd xam nañ fi ñu ne nañ leen porter plainte waaye porter leen plainte yéen ñii nga xam ne ñun ñii ñoo bokk nekk Sénégal moo gën a yomb ak i tëj télévision kon

ñu ngi leen di encouragé di encouragé groupe Walfadjri bi nga xam ne tëj nañ ko sax moom parce que nag président Macky Sall mënta tëj télé yëpp mënta tëj rajo yëpp mënta tere aussi jéem na ko sax internet bi ñu bloqué ko loolu kenn mus koo gis ci pays boo xam ne bii démocratie fi nekkoon 2011 def nañ fi opposition ba président Ablaye Wade jóge fi kenn mës ta coupé internet mës ta coupé wuñ internet coupé wuñ téléphone arrêté wuñ journaliste ki nga xam ne nag moom bëgg naa ko tudd aussi ci mbir mi te toogoon foofa ca seen conférence de presse bi nga xam ne moom dañ leen dañ leen ko ordonné ñu ci bëri sax moom xam naa ba dem moom daanaka ñu woon ci seen coobare bopp waaye seen patron moom moo leen ne ay ca leen aju ko waxee président premier ministre moom du ngeen ko yéen ñi du ngeen di jàkkaarloo moom lu yëf yi gën a sedde rek mu gën a kile noonu ba kenn bu ko remarqué ba ñu naan premier ministre am na Sénégal moom kooku mooy stylo waaye bii xam naa patron daf ko ne ay ci jiitu ki nga xam ne moom laa ci ciy tudd nag muy maître Sidiki Kaba li tax ma koy tudd moom dafa doonoon ab jàmbaar ci défense des droits de l'homme ba muy mbokk Amnesty International ñu bari ci yéen juddoogu leen ndax 1979 la woon ñeent fukki at ak ñett ci ginnaaw mu jiite woon fédération internationale des ligues des droits de l'homme juróom benn at kon kooku xam nga ne taxawaayam ci droits de l'homme kenn naa taable wu ba ñu dénkoon ko kuréel international bu mag boobu kon ma koy laaj maître Sidiki Kaba du ma ne sax le ministre waaw boo tëddeeg sa njaganaay sa xel wala sa conviction du lay lay këpp këpp këpp nga jógaat toog

loolu alal jaru ko poste jaru ko privilège jaru ko monsieur le ministre de la justice bàyyi ñii ngay xoqatal sa personnel bi nekk justice am na ñu ci ànd ak yow am na ñu ci àndul ak yow seen position may na leen ñu politique parce que droit constitutionnel la maa ngi ci avec de benn xale te am am na yóbbuwuñ ko rek dans une zone neutre ah, buñ ko yóbbu woon kaw euh, madame lañ ko yóbbu amna signification bayil xalé yi ngay xoxatal bayil len ñu def seen liggéey tant que amul loko reprocher ci walu liggéeyam bayil len ci seen place du première fois ma nek na ministre de la justice am ay désaccord ak magistrat am désaccord ak ak ak ay personnel judiciaire waaye du non lañ koy faje régime jaay doole bi ñu nekk loolu kenn du kenn du ko nangu monsieur le président de la république jël ngeen seen conférence de presse bi ne waaw ñuy wax affaire CPI dañuy wu rek nit da ngay ànd ak yërmande ci sa ci say kàddu ñuy wax CPI li nu bëgg mooy xale yi nga xam ne boom nañ leen yéen ngeen ne fukk ak juróom benn lañu ñu ne ñaar fukk ak ñett lañu ñu ñu xam ñana leen boom ak kan moo santaane action yoo xam ne ci lañ ñàkkee seen bakkan kon loolu boo ciy wax na nga ciy ànd dal ànd ci yërmande xam ne moment bi ngay wax am na ndey yu ñàkk seen doom ak i bàyyi ñu yàq seen doom ak i mag ak rakk ñoo xam ne ba tey ñu ngi ci tiis ces pays yi ñuy tudd Sénégal di tudd ces pays rek gàcce la Sénégal moo njëkk a signé li naan statut de Rome dëkk yi cent quatre-vingt-quatorze dëkk leen Sénégal moo njëkk a jóg signé statut de Rome

li CPI la lañu ca wax statut yi ngeen wax mooy dëkk ba ñaawteef ya amee maanaam xale yi ñu rey bu gouvernement ba jëlul matuwaay yi pour ñu xam ñana leen rey ak ñana santaane procureur bu war naa mën a jóg def enquête dal di wax ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jàpp pour loolu moo tax ngeen dégg Sénégal ñu ne bëri rek ñu ne dinañ enquête waaye enquête du wax rek enquête da koy def enquête indépendante lañ lañu wax. te tegagu leen ci benn jéego kon moment bi ñuy wax te militant droit de l'homme yi di dajale preuve yi nañ mën a am plainte yoo xam ne yi procureur bi day ñëw def enquête loolu mooy li statut de Rome yi wax loolu xam nañu ko sénégalais yi aussi ñu xame ko noonu parce que tegagu leen seen gouvernement tegagul benn jéego loolu am na solo gaaw ngeen nag pour jàpp manifestant ak yéen ñi seen euh, journaliste yi waaye ci li ngeen gaawul moo ma jaaxal mille milliards Covid yi ba tey benn ma amu ci waaye xale ba bind ci page Facebook am ak ne d'accord ak nangam nangam mën ngeen a dem ba ca romlalu yaayam génne ko fa yóbbu waaye ne woon naa leen mille milliards yi du gaaw du gaaw de ndax ka ca biir premier premier goro de la république

ay ay am na ñu ci dé da ngay na gis résultat wu enquête ba ba tay bi yoon nak du du du demee noonu bii yoon dañuy bolé ñi nga xamné boom boobu nañ leen 2021 ak ñi nga xamné 2023 su ngeen ci jëlul ay jéego le procureur va s'autosaisir xam ngeen loolu Sidiki Kaba qui est un militant des droits de l'homme qui connaît très bien le statut de Rome xam na loolu ndax Kenya président ba fa newoon ci ay tolof tolof politique. ay nit dee ci la ca dee ak la ca gaañu boo ko xaymaa li dee fii ak gaañu fi moo ëpp kon bu mënee intervenir foofu war naa mën a intervenir fii ñoom xam nañ ko bu baax booy seet ña ngay wax rek parce que foog ñu am lu ñu lu ñu teg ci loxo international bi ndax fan yi gis nañu ne Sénégal fu ne fu ne fu ne fu ne baat euh, yëkkatiku na fa pour ñaawlu li fi xew dëkk yoo xam ne ñun ñoo leen doon conseillé ñëwal ba dëkku tey ñoom ñoo ñuy yedd ñooy yedd président waaye ñun sénégalais parce que ñun li ñu war a def ñu ngi koy def mooy défendre suñu démocratie xale yi dama leen di rendre hommage ndax ñoom ñoo ci ñoo ci gaañ ñoom ñoo ci loolu waaye Sénégal nag ba muy Sénégal dëkku bañkat la woon te jigéen ñi mosu ñoo des ginnaaw non plus président Macky Sall mënoo noo xoqatal ñun 17 millions sénégalais yi ba imposé ñu loo xam ne waroo ñu ko imposé kon communication boobu communication buy masqué tiitaange la parce que xam nañu seeni responsabilité tiitaange ci nekk loolu war nañ ko xam bu baax a baax a baax a baax lii yëpp nag li ko lal mooy li ma wax mooy président Macky Sall bëgg troisième mandat. troisième mandat bo xamné bi jaral na lu ne nak waye ñu nit défendre suñuy droit jaral nañu lu ne lu ne jël justice yëkkati ko ka ah ba tey nga bloqué Ousmane Togo kërëm ban ci ban texte de loi lañ ko tek ñu ngi dégg Ismaïla Major mom néwon na defatul droit politique lay def ba mu ñàkkee argument ba te dem ne waaw waaw waaw finalement sax politique la ñuy def kon politique la ñu bloqué voilà Ousmane Sonko ca këram ci politique ngeen bokkatee suma mandat ci politique lañuy lañuy lañ leen di dàqee yéen journaliste yi yéen xam ngeen ne tëddatu leen ba yandoor yéen ñii xam ngeen loolu benn journaliste tëddatul ba yandoor yéen a ngi xool est ce que moo bi sax moom waaw du article 80 vingt nag loolu kañ la fi ma saa lii ma leen di wax leen xam nga

président de la République, bu defoon ni ngay défé kon do mës a doon président de la république loolu duma tay ci di la ko fàttali doo ko mës a doon dalaa wo fi ci ben tàkkusaan nga wuy ni commissaire bu don yow bu don suñu jonn yalla yi tey commissariat présentation devant le juge mandat de dépôt ndax loolu légui mom la ñu gis kon do éligible kon na nga arrêté li nga xamné vraiment lu rafetul la ci démocratie waaye lu rafetul président de la république ci boppam li ñuy xaar ci moom le 25. ndax nee na wax le 25 mu par demande affaire troisième mandat teg naa ko am nga sax comme da nga mës a wax oui ni non da ngay la ngaa mucc non bi rek ñu du ko def bu ko defee sa gaa ñi génn sa gaa sa gaa génn président wax ne dina ko nangam nangam

ne candidat yépp dem leen ngeen wax ak sénégalais yi ku ne wax sa programme yow boo bokkulee rek sénégalais yi dal di déglu nga fexe ba wax dëgg yàlla suñu xale yi bak baa ngi jege si nga libéré leen ña doon apprenti ña yore woon seeni seeni seeni boutique mbagg mais seen place du ci prison ñu ngi ci euh, xayma presque plus de six jeunes ba tey au nom de ñu ngi lay ñaan nga bàyyi leen presse bi it nga baleen bàyyi leen tranquille ñu def seen liggéey ñu ñaan la ko mooy ko ñu ñaan la ko ci njëkk bo <laughs> troisième mandat t'es que tu souffres. monsieur le président ñaan na procédure monsieur le président ñaan la ci presse bi monsieur le président Khalatou ngay reporter élection calendrier constitutionnel du Sénégal du Sénégal Quel